mu doon itam nit koo xamante ni dafa nangoo liggéey yëmul woon ci der bi ak kurus gi déedéet yëmul woon ci der bi ak kurus gi daf doon liggéey ab opérateur économique la woon amoon nay tool di bay amoon na ay société yoo xamante ni ay actionnaire la ci woon di ci liggéey taxawul woon di xaar jenn yo juñ koy indil mu man koo dunde te benn exemple mooy kër gi ñu tudde kër Modou Diass bi mu ko tabaxee ba pare sëñ ndindi ñëw na fi mu ni ko xoolal sama liggéey bi sëñ ndindi wër ko ba pare dikk ni ko tuwaar fa kàll sëñ Cheikh ne ko seenub dara demu ci lépp sama ñaq la loola nangoo liggéey lëggee ko may parce que ñaqi taalibe yi mayewut salxewut leblewut ndénkaan la rek yoo xam ne seen borom dañ koy dénkaan te bis day ñëw dañ ko soxla te xottu gàll waajur su fekkente ne ni ay ndénkaan rek ngay xaar ngir faj sa soxla saa yu seen borom jël see seen i ndénkaan da nga tumuraan moo taxoon mu doon ku nangoo liggéey doon daw lu bare bare nag ci loo xamante ni fi mu doon nii jamono da caa te moom bu yàgg yàgg la ko doon commencé di ko moytu daam kenn koo xamante ne nii ku ñuy wax Seexuna Mbàkke bàyyi ma ko yónni ci moom amoon benn magam bu faatu mu dikk di ko tàgg sëñ Seex fekk magam booba dafa génnoon liggéey bi mu ñëwee mu laaj ko ni ko kooku fan la ne woon mu ni ko dafa génnoon réew mi di liggéey sëñ Seex ni ko yow nag ci loo ne Seexuna Mbàkke ni ko man Kaffrine laa nekk damay def bu nawetee ma dem ca tool ya bay bu nawet bi jeexee bu ma ñëwee ca marché ba wut place di liggéey sëñ Seex ni ko nanga ko fonk bu ëllëgee ñi ngeen di taseel duñu liggéey ab xaalis di ko jox kenn nga di ko fooyee bu ëllëgee ñi ngeen ñi taseel duñ liggéey ab xaalis di ko jox kenn nga ni ko fooyee te léegi boo fekkee yaa ngi fréquenté jataay yu murit yi ba dégg li ñuy waxtaan da nga xam ne sëriñ bu ndaw bu wékk seen mbir ci ñoom dana tardé ndax gars yi mel na ni liñ nangoo woon léegi nangootuñ loole teeloon na ko avertir ci ni xam ne jamono ngi ñëw luy doy nit ñu gis ni itam ni lépp loo koy defal dana la laaj loolu nu mu tëddee nga expliqué ko ba mu leer ci boppam moom du bàyyi mukk ni am na genn gàmm goo xam ne day séddale njaarim lay gàmmoo day séddale nag ci kilifa yi fa nekk am kilifa goo xam dañ koo tëb kenn ko di sëñ Cheikh laajee liste bi liir daan ne ko diw li tax joxu leen ko kooko ne ko diw dala jubuwut moo tax joxuma ko sëñ Cheikh dañ ko waaw ku la jubuwut ba pare saa yooyu séddale xañ ko kañ la lay jubu ku la jubuwut ba pare saa yooyu séddale xañ kañ la lay jubu jógal boppam dem ca gétt nag ba xool nag wa fa gën a rëy mu ne nañ ko dàq yóbbu nga xam ne ba muy jóg kër sëñ boobu taalibeem ya tëdd ci buntu kër ba fekk gàmm ñu ngi naan ah wi nag de ku ko amoon dana baax ci gàmm fekk ñoom ñu ngi am problème fan la ñuy jël ndawal ñu yeew ko ci buntu kër ba ne leen sëñ bi lañ soxla ñun leen mi ngi ci biir ba mu demee waxtaan ak moom ba génn ni ko sëñ Cheikh la ko jox kooko dafa xaaju ni nga ju toll nii sëñ Tuubaa rek koy joxe ba ñuy liggéey këru njarim nga bokk na ci nga ca man te loola moo ko tàggant loola doy na beneen bi ci des mooy day dugg si ci biir këram ànd ak Baye Moussa Diop Ndiaye bim mu se ci bir kër gi summi gram bu bim mu yoroon ñu génneel ko campagne bi mu tok bim mu bay ñek jëmaat ci bir am kum tassel muy dem sëñ Cheikh ni ko demal lamb sama poos mbub bobu 50 mil yi ma ci defon nga jox mako bay ñek dem làmb poosam dajut dara mu ñu wax ko ko ni ko mu ni ko da nga ratalo mais mako bay bàyyi sama poos dënd mu delluwaat dikkat ni ko gisuma ko Cheikh jogal bopam lamb poos bi daal ni xalas bay ñek ni ko de man la yow ak diw moko fi xaaral ma ñëw laaje ko sëñ Cheikh ni ko foo jëm mu ne ko laaje ko ko mu ni ko déedéet nit ku mënta muñ ayibam matoo ko kilif koo mënta muñ ayibam matoo ko kilifa te loolu bu ko nit ñi doon jëfandikoo coow dan coow du bare fi mu doon nii coow yi am ci biir kër yeeg dataay yépp mooy ñàkk mën a muñ léeg gis ko dal ci kaw soxnaam léeg-léeg gis ko dal ci kaw doomam dafa jël sama nangam dafa jël loolu yépp mooy ñàkk muñ te sëñ Fallou daa waxoon ni ñaar rek a na fi bàyyi muñ seeni i bon bon ak xaj seen ak muñ seeni i bang bang muñ seen i bang ak muñ seen i bon bon xaj bon bon ñaar yooyu rek muñ ak faj loolu dafa doonoon sëñ Cheikh man ngaa jawal li ñëw làmb dugal sa loxo ci biir poosam génne xaalis du la foo jëm du la loo koy doye loolu moom rek moom la ko ci yàlla jagleel kepp nga gisaat itam ni dem na arabu saoudite roi faysal invité waxtaan ak moom ba pare jox ko 60 millions ci jamono jooju may ko sëñ Cheikh delloo ñu ñëw ci Moussa Diom njëkk mi mu àndal ni ko dañoo bëgg nga jox ñu numéro comptam bu ko defee ñu wërsé ko ci mu jiitu jóg mu ni leen sañu ma ko nak ko laaj bi ko laajé suñ Cheikh ni ko matut bi mu am balen bokkum géwél bu dikk daal ni ko Cheikh mbacké li nga def mu ni ko ah, mu ni ko 60 millions ñu jox la ko même boko bëggut itam am la ko soxla mu ni ko foko ko mu ni ko dañ ko wax ma dégg ko mu ni ko buma ko yóbboon Sénégal tam no lay siwé té mom mi ak singor ma ci réew ma ndax asgor la so xamanteni ko jënd sëñ Cheikh du weet ci biirum néeg wax lu mënta génn ca pénc ma mukk ci ci biirum néegam génn wax loo xamante ni mënta génn ca pénc ma amul mooy du du tudd nit fu newul du wax itam loo xamante ni ni du noonu du wax lu ñaaw sëñ Thierno Mbacke Galongal dañoo tase moom Côte d'Ivoire sëñ Thierno ni ko xam naa ci yow ñett mu ni ko man mu ni ko waaw nee sëñ Cheikh jóg duju ni ko ban ak ban mu ni ko wax ju gudd li law law yi toll lépp kaamil du yow sëñ Cheikh waxam gudd mu ne ko bu ñaawee du yow bu tebbi ko du yow sëñ Cheikh du wax luy dañ am na géwél bu ko waxoon ni ko yow mi nga xam ne loo wax def ko mu ne ko loo wax def ko moom suñu borom rek ko jagoo waaye man Cheikh Mbacke du ma wax lu ma nëru te bari na kilifa yu lay wax da nga wax ak ñoom dara ñun la waaw te waaw ji déedéet lay tekki wallahi al-asim déedéet lay tekki dañ lay dig dara loo xam ne mën nañoo wàcc suñ tuwaan duñu la ko jox waaye da ngay bàggante ba tële fartoo te loolu lañ ci jublu moom du du wax luy dañ ndax toujours lim man lay wax doomi sëñ Tuubaa itam ñoo ko seereel sëñ Fallu bi ñu koy wax dañu Seex Mbàkke li ma xam ci moom mooy lu mu wax dana ko def te loo ko wax mu def ko xam nga loo ko wax def mu def ko moom yomb na waaye lu mu la wax dana ko def moom moo jafe loolu fi mu doon nii loolu fi mu doon ñu bare bari bàyyeetuñ ci xel li am beneen bi ci des mooy sëñ Basiiru dañu moom rek laa gis ci koo xam ne lépp lu ngeen séq tey mu wax la fu muy mujj bu ëllëgee te rek lay demee Sèye Blat dañu sëñ Cheikh du ngeen wéet mukk ci am néeg ren di dara su dekkiwaatee ci kaneen la dekkee dekkiwaay du ci moom. Sèye Abdou Khadir daa wax ni yàlla bu fekkonte ne ni day jeexal duma nangu mu jëkk fay sëñ Cheikh ndax bu ko fayee jeexal. loolu moo lay wan effort yi nga xamante ne ni mi ngi koy def ci la yooyu nag ay jikko la rek yoo xamante ne nii nit ñi ñoo ko war di jël di ko insérer seen bopp waaye waree su ko waxtaanee rek ñu di ko yéemu fettasu ndax nit la woon rek ku doon dund ci suñu biir waaye dafa gis ni jikkoy gor la jikkoy noble la yoo xamante ni noonu la ab jullit war di dund su ko defee ñu jëm ko roy waaye jullit ñi nasax nañ nasax boo xamante ne nii li waroon a baax lépp dañ ko jëñ tubaab bi fi mu doon nii boo civilisé organiser bopp ñu ni diw dafa tubaab boo ñemee dëgg ñu ni diw ab allemand la boo nangoo liggéey ñu ni diw américain la léegi kon jullit bi mooy lan kon dafa mel ni tappaleeg wurit yi jullit ñoo ko yor jumaa ji boo doon julli ji fi mu doon fi nga teg say dàll ba fi tegee sa portable boo génnee doo ko fekk te jullit ñi julli si woon ñoo ko sañ kon da nga xam ne jikko yaa ngi yàq jikko yu bon yu sew lañ yor yoo xamante ne ni dañoo war a seetaat suñu bopp xoolaat li nu am ñu waxtaane ko seet ya ca sell ñu ñu inséré ko ci suñu bopp waaye fi mu doon ni dañuy wax rek buñ dajee dañuy wax a wax a wax ba ba ni xaaw ñu delloon melaat niñ meloon loolu amul njariñ sëñ Muntaxa wax na ko ci màggalu poroxaan gi nee na bomb yi faagaagal nit ñi jikko yu bon yi ci suñu biiru porow